Fouta Ba. ah. Antoine. Lamtoro Antoine Antoine nga accéléré combat bi Lamtoro Antoine ñoo ngi xeex Lamtoro daw na jël ko takk na ko moom Lamtoro baadu ko daan Lamtoro Antoine Lamtoro Antoine Antoine a ngi cokkaat ci suuf. Antoine a ngi doo ci suuf takk na ko takk na ko am na ku nekk ñaari ngemb Lamtoor am na ñaari ngemb Antoine am ñaari ngemb Lamtoor Antoine Lamtoor Antoine Lamtoor Lamtoor baadu la xaata bi mbot la oh jaxabal na ko Antoine daan na ko daan na ko takk mu roof ko caxabal bi mu ko xaata Antoine roof ko caxabal bi moom Antoine moo nekk kii Kayar Antoine 2 daan na Lam ngi noonu. Jëlee ngoog. Onde le fou ngoog. français. Mes français est Je suis viens avec mes amis français pour le qui la lutte vient de demander des questions. Mes amis français est là, c'est la presse. La presse. Oui, eux on dit, on, on, parle, il faut parler avec vous. Il faut parler. Tu connais la lutte sénégalaise Non, je connaissais pas, il m'a fait découvrir, euh, ça a l'air d'être vraiment sympa, bien fair play. C'est beau. Comment vous trouvez la lutte sénégalaise intéressant. Intéressant. Très intéressant. Parce que c'est très fair play, il n'y a pas de coup au visage, de coups de genou, de trucs euh, ultra violents qu'on a l'habitude de voir euh, en MMA ou ailleurs. Et euh, non, c'est intéressant. Beaucoup de c'est bon, t'es qui Bah, forcément, l'invité d'honneur. Merci beaucoup. Jetleen ngoog mbokk yi ànd ak waa xam sa cosaan gis naa fi ñoom Onde le Fou ñoom Sokh ah. soriatul nga wàcc ñëw tey ci stade lu waral loolu yëg-yëg la wala. ki sama kilifa la bu soxlaa damay nekk ndongo ba yàlla may ko li mu ngeen ki muy bëreel. waaw jam ceeri champion la ndaanaan la ndax fi bàyyi jët li jël. lu tax loolu. xale la. laajoon naa ko moom newoon naa ko lan moo tax lébu yi fi ñëpp bàyyi yéen ngeen di xam paajoo lu waral loolu. Oh, parce que amalu tax jàmbaar dëgg da ngay nangu lu métti. te pour nit ñi def la jàmbaar da nangoo daan jàmbaar jam ceeri jàmbaar la gàmmu jàmbaar la. ngay waaj sa combat yoo tamit nooy waajee gàmmu gay. sant Serigne Touba bis du romb bis. man taalibi Serigne Touba ragaluma dara lu métti lu gën a métti gën maa arrangé te bu la 15 mars boo leen ngeen xam ne soq Wassare Lamb bëgg laa seet si waxtaan ak yow lu jëm ci sa combat. noo gisee loolu amul benn problème amul benn problème man taalibe Serigne Touba laa loo leen bëgg dama leen koy yombalal. parce que maam Serap wàcc na moom Diam Terry wàcc na laay laay la laa ee li neex na mbokk yi ee eh, Diam Terry ngoog laay laay la laa jëla bañ koy jàpp cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak Jordan nuyu naa maa ngi lay fay grand yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm baax a baax gerte laa gi Jordan fu mu ne waaw maa ngi ci dëkk bi de maa ngi ci dëkk bi maa ngi liggéey maa ngi entraînement. da nga voyagé woon wala. non voyage moom depuis daaw la woon quoi. mais ñoo naa maa ngi ci dëkk bi maa ngi si ruq job bu baax a baax. gisaguñ la lu waral loolu. ah si gars la ñu war a jël nangu ñoo jël. comme ñan. Malick Niang dañoo ñu bëre. ñi ma ngaa lekk avance Malick Niang. sama moom moo ko lekkoon delloo ko xamante nañ bu baax lu may ragal ci Malick day màggee damaa xam na ñëpp dañ ko fee bàyyi man na moom nag laay wër moo ma gën a suwal tabaski nañoo ñu bëre maa la ñaa moo moom xam na loolu ah. nañoo ñu bëre su dul ko su dul Malick ñaa Malick ñaa ñoo ñu bëre forta ñoo ko revanche ñu bëre làmb ji xaarul kenn nañ ñëw ñu bëre booy sax nañ ñëw ñu bëre booy comme kan su ko si moom ñëpp ma yaa san ñëpp nañ ñëw ñu bëre dama bëgg a bëree fi mu toll tuma damay xaar dama daaw bari maa ngi entraîné maa ngi lax sama rukk di job nañ ñëw ñu bëre waaw jël préparé ko bu baax nag franchement dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam waaw champion la xale la liggéey na moo tax ñëpp ñëw gunge ko di ko ñaanal may ko mu sedd kontaan naa ci yow. daañu ko naan bëgg Liss Liss nuyu naa la. bëgg naa yaa ngi am jàmm. maa am jàmm bis laaj. jàpp daan yangaas yëkkati dem midi. kontaan continuer mer maîtrisé. xale yaa ngi noonu. Arlem Papa Kane Papa Kane 2 moo féete à gauche Arlem moo féete à droite mbokk yi Papa Kane moo ngemboo ngembul weex lii ma loolu Papa xeex na moom léegi door na gauche droite Arlem ay joxoñ baax lay def Arlem Papa Kane dafa mel ni xeex bi enrangé wu ko Papa Kane Arlem Arlem a ngi koy Arlem baa du ko dóor daanu baa Papa Kane 2 da koo teqaloo ko ndomba yéen a ba ci kaw dóor ci suuf moom Papa Kane 2 Papa Kane 2 Papa Kane xale bi daa mën a bëre mu teq ko woo ko ndomb ay Adama. Adama Papa Kanda mën a bëre mbokk yi baa ngi noonu général Kairé Liss Ndiago booy xool mbokk yi ñoom ñaar xaw nañu neexoo Habib baa ngi wax ñoom Habib bi sifflé Général Kairé Liss Ndiago Général Kairé à gauche Liss Ndiago Général Kairé Liss Ndiago Général Kairé eh Liss aka waane <laughs> Liss Ndiago Général Kairé xoolal téléphone yi ni muy tàkkee ci kaw tribune Général Kairé eh gauche Liss mépp na doo ko góos Général Kaïré xeex na ak moom Général Kaïré door na ko eh, plaqué na ko Général Kaïré Liss Ndiago baa du ko doomu daanu baa du ko doomu daanu baa du ko doomu daanu Liss Ndiago Général Kaïré xale yaa ngi bëre sar ba jóg nañ ay eh, xale bëre xale xale yaa ngi bëre Liss Ndiago Général Kaïré Liss Ndiago Liss Ndiago Général Kaïré Liss Ndiago Général Kairé jàppante nañu Liss Ndiago à droite Général Kairé à gauche eh, xale yi hey eh, xale yi làmb daal xale Adama Adama xale yi tolloo nañu doo dinañ fi gauche droite léegi jàggandalu laay stade bi yëpp a ngi yuuxu Liss Ndiago Général Kairé Liss lu ko bëgg a def nii Liss lu a def nii Liss Ndiago Liss Ndiago jàpp na ngemb téere yaa ngi tas sengoor yi général Kayré jàppul moom Liss Ndiago général Kayré Liss Ndiago général Kayré général Kayré ngoo ko ci suuf Liss Ndiago Général Kairé Ndiago yaa ngi noonu Liss Ndiago Général Kairé Liss Ndiago attaqué na ko léegi général daa ah, leen jàkkaar lool maa ngi lay nuyu di nuyu Baye bi tey dafa neex làmb na Liss ngi dóor Général ngi dóor ko Liss daan na Liss Ndiago caxabal na ko mu daanu nee na toog leen Liss Ndiago daan na général Kayré Liss Adama jëlal ma public bi Adama xolal ma lii Adama laay waa jàmm gën si kaa noonu hee xale yaa ngoog laay Liss a ngoog xale bi fu ñu jëm ak Liss ñun fu ñu jëm ak Liss noonu Liss Ndiago ngoog ay Ndiago bi ay njaago bi <laughs> liis njaago ngoog liis a ngi noonu liis a ngi noonu liis a ngi noonu liis a eh, ngi noonu liis a ngi noonu liis xale baa ngoog njaago baa ngi noonu njaago baax bi <laughs> mbokk yi ngoog yee eh, raam si lu ma raam si ma war jëm du man booy

Lobou Yoff fi mu jàpp baax na Lobou Yoff Boy Pire écurie Waalo Lobou Yoff écurie Yoff fàq na ko fàq ko loobu yoof fàq na ko daan na ko daan booy pir loobu yoof daan na booy pir doxoo fàq mu ëpp mu mbokk yi combat spécial baa ngi noonu Boy Melax Jëf Sow la nekk Aliou Diouf Bada Jonn Boy Melax lañ jaakaar lool mbokk yi Aliou Diouf moo tent bopp bi moo ñëwoon ginnaaw abit baa leen di xool mbokk yi moo booy melax daw na jël ko par <laughs> eh, Aline Diouf booy melax booy melax bàyyi mu xalaat benn yoon booy melax booy melax Aliou Diouf Aliou Diouf ka booy melax Aline Diouf lañ moo ñëwoon ginnaaw booy melax eh, booy melax may ko benn yoon mu nooy booy melax jël soog a nekk Aline Diouf bara jonn Aline Boy Melax moo ngeem moo ngeemul vert li xeex nañu daw na jël ko Boy Melax Aliou Diouf Boy Melax Aliou Diouf ah daje nañu dafa jël tànk ba daje nañu da koy daan da koy daan li ko may dafa bari Aliou Diouf li ko may daan na ko daan na ko daan na ko moom Boy Melax lim ko may dafa bari lim ko may dafa bari ah. Boy Melax moo daan Aliou Diouf Boy Melax moo daan Aliou Diouf. Boy jël leen ngoog Aline Diouf moo daan léegi kii kon Boy Melax moo daan léegi Aline Diouf ñoo ci dernier bi ñoo benn butéel ñoo ngi benn butéel Sokka Ngok kanja Njedle Ngok di waaj ci digg géew bi ñu koy ñaanal Njedle Ngok yor benn bu ndaw. léegi nag yaa ngi jóge fële ñu doon. wuyu ma. waaw baax nga mu non non dama xaaral xaaral wax yow. noonu. ñu gis na tay nga andi Li noo andee Jet Li ndam rek dañu fàtte drapeau bi drapeau bi yéen a nga xam ne moom la ñuy jiite di président des des promoteurs authentiques moom ngeen di bëre drapeau Diène Marcel Diagne I chosen me. I chose Jam Terry. Jam Terry ngoog. Jam Terry kay jël jël li xam sa cosaan. ah foto bi rafet na jët leeg jam teeri ngoog ku ci nekk paa yaga say deeñe butéel lamb jaa ngi noonu eh, lamb ju neex lamb ju naa gaaw lamb ji eh, du yàgg du yàgg jët lu du di ko xaar jam day dem lamb ju gaaw lamb ji eh, Adama noo gisee ñaari mbër yi. sama na lu muy ràngoo moom Jet Li. simi na ko benn xànc la. solaat na ko. wàcceewaat na ko. ay ngi laaj sixième. jox na jam teer bi mu jox na avertissement Terry nee na ko dugal potees abi baa ngi laaj ay jugeem laaj na ko moom Diam Terry nee na ko ba am pare nga jëli pare na ci diggante Diam Terry ak Jet Li drapeau Marcel Diagne borom Jilaas combat baa ngi noonu le 23 arène nationale ah ñoo ngi demee wet jantéeri jatli ñoo ngi demee wet ñoo ngi demee wet combat gaan de am xeex am bëre jaay noonu jatli <laughs> xam sa cosaan jamtéeri kayaar lamb jaay noonu ñoo ngi lewaatoo jamtéeri teg pied Jet Li teg pied droite ñu jaakaarloo ñoom ñaar Diam Terry sëgg na suuf Diam Terry sëgg na tibb suuf demee nañu wet ñoo ngi ci wetu saaku yi Diam Terry Jet Li Diam Terry Jet Li Diam Terry Jet Li Jet léegi Diam Terry na léegi yàgg yàgg sa tànk la jëm jam teri jet jam teri jet jam teri jet li jël na ko jàppante nañu jàppante nañu jet kor na ko jet li kor na ko rokas na léegi moom jet rokas at na léegi moom jet li ñooy xeex jam teri door na jam teri door na jet li ay baal tawaat nañu du yomb lamb ju neex Diam Terry Jet Ly Diam Terry Jet Ly Diam Terry Jet Ly ngi lewaatoo Diam Terry Jet Ly jamteeri jelli abi neena bëre leen jelli cokaas na léegi ñoo ngi jàppante ku nekk ngi déglu sa Diamtéry mbokk yi moo ñu ginnaaw Jetli leen jaakaar lool Jetli benn loxo bi jàppul kor na moom Jetli moo ngi dóor du dóor Jetli Diamtéry fàq na ko fàq na ko loolu baaxul Diam Terry fàq na ko léegi bañ Diam Terry jël lii ci suuf jël léegi dóor ci faari jël léegi pompe jël leen pompe moo tax jël pompe pour mu bàyyi foofu jël li jatli bi jatli benn loxo bi jàppul moo ngi woo jàpp ci ngemb li jatli jamteeri jatli jamteeri ah bëri na làmb ñu neex jatlee ngi dóor ci faar yi jatli jamteeri jatli Jet Li Diam Terry Jet joxe léegi dafa bari ku nekk gi taxaw ne tekk yi déglu sa morom Jet Li Diam Terry Jet Li pompe Jet Li dóor ci faar yi Jet dóor leen ko bëgg a plaqué jël leen ko bëgg abel bi génn nañ saako yi stade baa ngi toj stade baa ngi riir làmb neex na ay jët li jëm teri li jëm jot li jantéeri jët li ngi waxoon si suuf dooraat na moom jët li dooraat na beneen jët li na ko takk moo ngi koy takk jamtéeri takk jamtéeri takk Jet Li ngi bañ Diam ah, na rëcc na moom Jet Li Jet Li Diam Terry ñoo ngi jàppante ku nekk ne teg Jet Li Diam Terry Jet Li ngay puus Jet Li Diam Terry Jet Li Diam Terry Jalli Jam Téry abi bi àtte Ardo Jam Téry dem Ardo ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Diétly Diam Terry lewtoo bi yàgg na bi yàgg na Diétly Jet Li Diam Terry daw na jël ko moom Diam Terry Jet Li kor na ko moom yootu ngemb li Diam Terry añ na ko léegi Jet Li ngi doo yi jët lee ngi dóor jët lee ngi dóor Diam Terry moo ñëwoon ginnaaw jët li lañ jaakaar lool drapeau jën marsal la kookoy borom jilaas Jet Li Diam Terry Diam Terry nga koy topp Diam Terry nga koy topp Jet Li dugal na léegi benn droite daw na jël ko jàppante nañ biij na ko moom Diam Terry <laughs> na ko léegi war na ko ndomb Diam Terry war na ndomb Jet Li Diam Terry war na ndomb Jet Li Diam Terry war na ndomb Jet Li Diam Terry koy bëgg a yenu Diam Terry koy bëgg a yenu waaye Jet Li daa bañ daan na ko Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li Diam Terry daan na Jet Li